mbokk internet di safo di seetaan xibaaru bambuk dale nag jàmm ci seen émission gan gi ki ñu fi dalal tey nag mu nekk Georgien nekk jigéen bi nga xamante ni nii dafa brave ambitieuse di yëngatu ci plusieurs domaines moom lañ fi dalal ñu fas yéene waxtaan ak moom ci première partie bi vie ak parcours am Dior ñu ngi lay nuyu. jërëjëf euh, maa ngi leen di fay bu baax di rafetlu bu baax a baax euh, dalal bi nga xam ne dalal ngeen ma ci xibaaru bambu di nuyu mbokk internet yëpp. di nuyu mbokk département bu Koungheul gannaaw bañ sante yàlla julli ci sang bu tedd bi di nuyu samay mbokk samay waa kër ak waa Koungheul yëpp comme ni ko waxee rek man maay madame Ndiaye Dior ne di présidente foyer de la femme bu commune de Koungheul ñëpp xam ne ni doomu Koungheul laa ndax euh, ndey Koungheul la bàyyi Koungheul la booleeg ma juddoo Koungheul. dëgg la waaye ci loolu noonu yëpp dama bëggoon xam tey nga wax ma yow Georgien mooy kan tey par exemple ñi la xamul woon soo leen le Georgien nan lañ mën a xam si yow. waaw dag may may ma dellu si tuuti rek ci ginnaaw tuuti gannaaw ba ma juddoo Koungheul ñëpp xam ne ni rek Dakar laa nekkoon parce que foofu laa poursuivre samay études moo xam préscolaire scolaire oh. moyen et secondaire après euh, marié fa aussi ba nekk maire de deux enfants dont une fille et un garçon après rek ci laa ñibbi si retourné fii Koungheul comme te Koungheul laa am ma ñëw rek ba ma ñëwee aussi vraiment dama wan ni waa Koungheul doomu Koungheul laa bokk ci lépp loo xam ni ci leen yëngatu loolu moo ma permettre ma lancer wu dans les mouvements associatifs ba yàlla defoon ma nekk première femme membre de zone muy zone 1 a en passage di nuyu bu baax a baax euh, président Cheikhou Diakhaté parce que au temps aussi moo nekkoon le président de zone une 1A bu Koungheul nekkoon it euh, trésorière euh, comité de santé bu centre de santé bu Koungheul par la suite ci laa jóge ma ne rek lépp loo gis étape la ma jógee ci phase 1 laay wax waaw phase 1 bi li tax ma ne phase 1 bi parce que foofu c'était la jeunesse ma xool sama boo xam ne je ne plus jeune ci laa dugg dans les mouvements de femmes ba ma demee dans les mouvements de femmes loolu moo ma permettre aussi ma bokk ci kuréel gi ñuy wax comité consultatif des femmes chargé li nga xam ne mooy yor communication bi au niveau de la commune de Koungheul chargé ko it au niveau du département de Koungheul di nuyu bu baax a baax euh, la coordonnatrice Adjaratou Nafi Ngom en même temps aussi occupé li nga xam ne mooy présidente foyer de la femme bu commune de Koungheul nekkoon it ci ONG de santé communautaire yi yaakaar naa ni jaar-jaar boobu moom moo gën a yaatu ndax euh, dafa nekk loo xam ne activité de développement la si sillonné naa tout le département de Koungheul j'ai fait 11 ans dans les ONG de santé communautaire ci département bu Koungheul. waaw ginnaaw euh, damay ñëw si question bi nga xamante ne fi nga daanelee fa lay ñëw en tant que président euh, de la foyer de la femme tey lan nga ñu mën a wax tey ci kuréel boobu noonu lan nga ñu ci mën a expliquer lu xamante ne ni lu leeral suñu bopp. waaw kuréel boobu damay remercier l' ensemble des femmes du commune de Koungheul wax dëgg fa yàlla ndax su ma ci jotee c' est grâce aux femmes de Koungheul parce que c' est les groupements de femmes ñoom ñooy constituer assemblée générale bi ñoo amoon confiance porté ko à ma modeste personne ñu defal ba présidente foyer de la femme ba ma ñëwee aussi yaakaar naa ne rëccuwuma ko parce que rek fekkoon naa fi équipe bu dynamique bu jàmbaar mais rek euh, am na ay activités yoo xam ne jotoon naa sooxe ba ñu ñëwee rek ci li nga xam ne mooy ndimbalu le président du conseil départemental bi nga xam ne moo génn muy monsieur le ministre Assane Diop. di koy saluer en passage ci jàppale bu am solo bi nga xam ne jàppale na ko foyer de la femme ak bëgg gi nga xam ne bëgg na ko jigéenu département bu Koungheul rawatina commune Koungheul ci budget mu jël réhabilité waat li nga xam ne mooy maison foyer de la femme bu Koungheul. mu ne du taxaw foofu jë euh, indi ay matériel yoo xam ne yu am solo la jagleel ko jigéen ñi aussi am ay partenaires yoo xam ne at euh, ministère de l'économie euh, numérique bi monsieur Yankhoba Diattara jiite aussi ñu ñëwaat ci seen benn programme digitalisation des femmes ñu indi ñu ay lot de matériel par la suite aussi bañ pare ñu defal ñu ay formation jàngal jigéen ñi accès au accès digital bi vraiment ñu defal ñu ci ay formation foofu it taxawuñ fa parce que ñëpp xam ne ni foyer machine informatique yi ñu ngi fa dañuy def informatique transformation fu ñu ko waxee ñëpp xam ne ni dañ ko fay def parce que am na matériel yoo xam ne jox nañ ñu ko fa dañuy def coupe et couture parce que le président Assane Diop aussi doté woon nañu ay machine de couture voilà mi ngi nekk foyer aussi am na ci xale yoo xam ne d'ailleurs sax commencé neen ay formation foofu biir foyer de la femme Euh, ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay def mu bokk ci yëngu-yëngu yi nga xam ne daal pour l' instant ñu ngi koy def euh, foyer vraiment di ci jaajëfal bu baax comme ni ma wax mënu ma koo ñàkkaa bañ a wax sama bureau bi nga xam ne aussi ñoom ñoo ma accompagner parce que kenn nit mënul rek ñoom ñëpp aussi ñoo ci jàpp ba nga xam ni yooyu fekk nañu fa at ki nga xam ne mooy le ministre de la femme Ndeye sali Diop ba mu fi ñëwee aussi am na matériel boo xam ne jagle woon na ko jigéen ñu foyer aussi bénéficier woon nañ ci kon vraiment ñu ngi ci jaajëfal jigéen ñi nga xam ne ñoo ma accompagner jàppale ma ci li nga xam ne mooy liggéeyu foyer de la femme. waa ñu gis la nga nekk jigéen di yëngatu ci euh, kuréel yu baree baree bari tey naka nga mën a dundee loolu en tant que jigéen nga nekk jigéen ba pare di euh, cumuler sa mariage ak li nga xamante ne ni moom ngay nekk di liggéey en en ce moment. waaw dëgg la métti na. parce que nekk ci mariage aussi yor des activités de développement c'est un peu difficile mais rek yàlla daf maa dimbali boole ku baaxee dak ku am compréhension ku ma ci jàppale bu baax muy sama jëkkër di ko ci remercier bu baax a baax en parce que dañuy ne doole yu kumba sàmba waaye xelab sàmba kumba kon doole gu ma mën a am rek dama ko koy sante di koy gërëmee parce que su ma ko jafeloon rek man am li ma ci war a mën a def du ma ko ci def mais rek moo ma ci jàppale bu baax a baax yombalal ma ko ba nga xam ne dinaa mën a dem di ñëw parce que activité de développement ñëpp xam ne ni dem at ñëw la rawatina nga nekk ak jigéen ñi yor jigéen ñi di leen gérer kon nekk na loo xam ne yombut des fois rek euh, da nga am ay pression mais lépp loo gis rek da koy gérer comme ni ma la ko waxee comme te dama jaar dans les ONG de santé communautaire ñu daan liggéey ak jigéen ñi vraiment mënoon neen euh, surmonter à tout les euh, pressions yoo xam ne jot neen ko dañ koy gérer sans problème te yàlla def na it aussi jigéenu Koungheul jàpp nañ ci bu baax a baax daal en tout waaw Tata Dior comme ni nga ko waxee rek euh, comme euh, ñu gis na yow nga nekk euh, membre de la chargée chargée de la communication communale et départementale tey ngay yëngatu ci wàllum ay ay yëpp nga xamante ne nii jigéen ñi daal ci la ñuy yëngatu dafa mel ni daal yow daal jigéen ñi rek nga faral est-ce que góor ñi tamit duñ la mel ci catégorie non xam nga góor ñu duñ ñu faral mais c'est que rek ñun jigéen ñi on est très organisé loolu la parce que am na ci yenn structure yoo xam ne c'est pour les femmes suñu foyer de la femme c'est pour les femmes comité consultatif des femmes c'est pour les femmes aussi mais rek terewut suñuy càmmin leen danañ leen jàppale waaw léegi foofu dama fi revenir tuuti mooy comme ni ma ko waxee c'est Adjaratou Nafi Ngom mooy coordinatrice comité consultatif régional yàlla def rek mu baax lool aussi ñàkk ki ñaan ba mu demee ba xam ne déplacement yi daf ko sonal dafa jël lépp loo xam ne rek lu présidente war a def mu euh, délégué ma ko jox ma ko comme te man maa yor communication bi voilà de ce fait que sax mën naa ne intérim moom man maa koy assuré instant bi maay dem ci yu bëree bëri voilà mu nekk kuréel boo xam ne rek jigéenu Koungheul il faut nga xam ne moom moo boot képp koo xam ne mooy groupement de femmes légal ou pas nga légal ci comité consultatif nga sukkandiku beneen structure de femme rek doo ko tege comité consultatif jigéenu département de Koungheul xam ni ku yor groupement de femmes amul fenn koo bootu fu parce que ministre de la suy wax ak jigéen ñi mooy fi nga xam ne fa lay jaar pour mot mën a jot ay jigéenam mu nekk kuréel goo xam ne kuréel gu am solo parce que dañ ko samp ci commune yëpp commune boo dem comité bi mi ngi fa kon vraiment lépp lu ñuy def it dañ ciy jokkoo ak ñoom ba nga xam ne amul benn jafe-jafe activité bu amit aussi même chose lañ koy defee 8 mars ñoo koy bokk ànd dem Dakar activité ñoo koy partagé leneen loo xam ne am na jëm ci jigéen ñi vraiment suñ confié comité consultatif des femmes dañuy teew teewaay bu mat sëkk pour représenter l' ensemble des femmes du jigéen tey nga nekk jigéen ba pare di yëngatu ci yëpp. Euh, plusieurs domaines est que euh, doo toog yenn moment yi nga xamante ne nii da ngay am euh, yenn difficulté yi cumuler euh, sa travail ak leneen ak leneen wala nga am fii membre nekk présidente de la foyer de la femme en même temps nga nekkaat leneen ak leneen est-ce que loolu du du la travailler. moo si day travailler métti na mooy comme ni ma la wax rek damaa nekk ku baax rek ku ma jàppale rek moo tax ni mu waroon a diisee aussi diisee wu ko aussi jigéenu Koungheul it ñu jàppale ma ci bu baax a baax parce que am na loo ne suñ ko defoon parce que déjà nga yor foyer de la femme rek charge la nga nekk ci activité de développement yi nekk ci ONG yeeg yooyu déjà aussi loolu it charge la nga ñëwaat nekkaat comité consultatif ak ñëpp ni nga xamee jigéen ñi ni ñu bëree coow mais rek Dieu merci je touche ba nga xam ne yàlla def na ne jigéen ñi yàlla déggoo la ne ma ñoom ba nga xam ne yaakaar naa daal amaguma ci benn jafe-jafe di koy sante yàlla bu baax a baaxee di koy sante waa Koungheul mën nga ñëwaat ci financement DER yi nga xamante ni passé na temps yi passé euh, xaalis bi di ñëw di jaar ci sa loxo di nga koy jël di ko séddale jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci population Koungheul lan nga si mën a wax. waaw financement yooyu avant ma ciy ñëw damay dellu si tuuti en arrière ci am na financement yoo xam yoo xam ne jiitu woon na mooy yi nga xam ne la ministre de la femme Ndeye Saly jot indi woon na ko ba mu ko indee muy première tranche jigéen ñi déposé woon neen seen projet bañ déposé mu ñëw moom en personne ñëwal boppam ba mu ñëwee mu amaat beneen montant bu am solo boo xam ne joxe na ko yàlla def nag ba mu ko defee defoon neen dépouillement bi am na groupement yoo xam ne ñoom la seen projet duñ ne ñoom la sax seen projet gën a baax mais bañ toogee at commission bi dañ ne ñii kat seen projet yi mooy projet yi nga xam ne yaakaar ne ni ñii war neen mën a génn jigéen ñooñu rek jot nee jël seen financement parce que am na jigéen ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi laaj ci xaalis boobu xaalis boobu foog ne xaalis bu nasaxal la mais neen jàpp ne xaalis boobu dem na ci groupement yi nga leen leen moo xam ci commune Koungheul moo xam dans les autres communes aussi vraiment jigéen ñi foofu jot neen fi seen xaalis kon ñu leeral ko seen bopp bu baax a baax beneen tranche bi nga xam ne des na boobu day jaar par banque islamique banque islamique bi muy jaar rek ñoom duñ joxe xaalis ñëpp xam ne ne matériel leen joxe kon boobu leen euh, joxeegul mais bële moom jàll na di ñëw rek ci bi nga xam ni mooy bu mag bi di yëngal instant bi jamono bi ci Koungheul muy deer bi mu nekk euh, loo xam ni lu baax la ci jigéen ñi mais rek euh, damay wax période bi mu ñëw dafa nekkoon période boo xam ne bu xaw a doy waar parce que li tax mu xaw a doy waar daf ñoo ñëw fekk ñëw en pleine campagne électorale am nga campagne su xëccee ba jóg rek lépp lu jëm ci financement rek na sama mbokku jigéen ñi dañuy ne état la duñ fay mais rek euh, mu nekk loo xam ne dëgg la état mais état dafa jóg pour jàppale jigéen ñi jóg pour dimbali jigéen ñi parce que le président de la république Macky Sall képp ku ko xam xam na ni mu bëggee jigéen képp ku ko xam xam na ni dafa bëgg jigéen mënal boppam jigéen mën a autonome di demal boppam ba tax na mu jël DER bi indi ko jagleel ko jigéen ñi mu jege leen lool rek ba mu leen jegee mu nekk pourcentage boo xam ne pourcentage bu faible la pour jigéen ñi mën a demal seen bopp di mën a def seen petit commerce di liggéey di delloo mais rek malheureusement rek jigéenu Koungheul vraiment man je ne comprends pas dañuy parce que fi ñuy mayee xaalis moom yaakaar naa fu ñu ko woo sax wax ñëw. waaw boobu noonu boo bëggoon na nga amal ci leeral tuuti ndax jigéen tey mën nga ne financement nga jël sa financement ba pare léegi est-ce bi nga xamante ni quoi que nit ki day jël ba pare du delloo fay wala mu jël ba pare naan ah non alalu nguur gi comme ni nga ko waxee du ma fay genre est-ce que yéen yooyu du ngeen si am problème yi nga xamante ne si. loolu moom dañ koy jànkuwanteel. mais rek dafa am loo xam ne aussi baaxoowu nit wax dëgg fa yàlla di too di koy fësal lool di koy waxit waaw mais rek ci instant bi nga xam ne ci leen toll nii neen xam ne lu mat 2000 euh, dossiers enrôlé neen ko 2000 dossiers yooyu daanaka ñëpp jotoon neen 50 000 50 000 la taux d'intérêt bi de 2500 euh, nga ci doon teg muy 50 2500 mais malheureusement comme am na ñoo xam dañuy fay comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne duñ fay mais nag ñi nga xam ne fayun moo demoon ba nga xam ne plateforme bi nga xam ne moom laa yor bu comité consultatif depuis lors dañ ko tëj ça fait pratiquement deux mois ñu ngi ko tëj ñi nga xam ne jotuñu woon jël instant bi dañ leen pénaliser ba nga xam ne mënoon dugg ñu xam ne loolu moo tax mënuñ dugg mais rek bañ toogee ba waxtaan ak waa parce que amoon na benn mission boo xam ne récemment rek ñu woon na fi bañ waxtaanee dafa am stratégie bu ñu mujjee jël bañ xoolee répertoire bi képp koo xam ne constaté neen ni yow jël nga te fayoo dañoo mujjee dagg ay convocation convocation yoo xam ne dañ koo jël jox ko brigade brigade di koy jox les délégués de quartier ñu koy jox ñooñ nga xam ne juróom nga vraiment c'est déplorable gënaluñu woon parce que bëgguñu woon affaire bi yegg foofu mais am na ñoo xam ne rek il faut ñu def ko pour mën a permettre aux autres femmes aussi ñu jël am na ñoo xam ne rek ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax rek vraiment chaque une semaine wala chaque trois jours ñu ñëw renouveler waat seen crédit jël liggéey ñëw delloo jafe-jafe bi daal foofu la féetewoo instant joor joojee ñu fu dégg joojee xam ne jigéen bu brave la jigéen bu ambitieuse jigéen bu engagée kon nag euh, tey dama bëggoon nga wax ma sa diggante ak euh, ministre de la jeunesse mu nekk ki nga xamante ne ni sa sœur la ma bëggoon nga wax ma tey ji sa diggante ak moom. waaw question boobu yaakaar naa am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi koy laam-laame ñi may interpellé di may laaj mais am na ñu bëri ñoo xam ne aussi des naa leer seen bopp. waa ministre de la jeunesse moom suñ koy wax muy madame Néné Fatoumata Tall Mbaye c'est ma petite sœur de même rek kon euh, waa Koungheul yaakaar naa am na loolu jaratul ñu koy laajte ñoo bokk benn ndey muy sama ñetteelu tofo ñoo bokk benn ween buñ nàmp kon mën leen jàpp ni ministre de la jeunesse doomu Koungheul la ndax yaayam doomu Koungheul la Diordien lañ dalaloon tey ci seen émission gan gi di leen fàttali nag yéen a ngi woon seen première partie dañuy daal di dugg nag ci deuxième partie bi waxtaan ak moom ci vie politique waxtaan ak moom ci lépp li nga xamante ne ni mooy politique en général donc nag dañuy daal di dugg ci euh, politique bi rek incha allah Tata Dior dama lay laaj lépp li nga xamante ne ni mooy euh, politique bi naka nga koy gérer ak élection législative yi di ñëw nan nga koy waajalee ak noo koy waaw politique suñ ko waxee yaakaar naa dañuy wax sama sama domaine la gannaaw ba ma génnee ci développement parce que laaj nga ma léegi question bu am solo lu ma bokk ministre de la jeunesse kon xam nga ministre de la jeunesse euh, elle est politique kon su ma bokkee ci famille boobu kon euh, mën leen wax ne man it je suis politique voilà ba tax na rek sama euh, yëngu-yëngu ci politique man ma préféré rek defee ko fii Koungheul ànd ak it un très grand responsable un grand homme muy monsieur le ministre secrétaire d'État chargé des réseaux ferroviaires monsieur Mayacine Camara yàlla boole ñu it suñu kilifa muy la ministre Assane Diop di suñu kilifa ñun ñëpp ñu rek ñu tonk ci nga ki nga xam ne mooy le président de la république Macky Sall li tax rek ma ciy yëngatu dañoo nekk nit ñoo xam ne nit ñu bëgg seen dëkk leen ma daan gis action yi nga xam ne ñu ngi ko daan euh, def fii ci département bi ak xam-xam bi nga xam ne am neen ko au delà de notre localité vraiment kon ma ne su ma demee bay yëngatu ci politique war naa mën a ñëw ànd ak ñoom loolu moo ma gën a xiir ma dugg ci politique bi ñëwit rangé wu ci seen ginnaaw di yëngatu yi seen ginnaaw di leen jàppale ci lépp loo xam ne jëm na ci seen euh, développement euh, politique de développement de femme ma leen ci accompagner bu baax a baax waa comme ni nga ko waxee sa diggante ak euh, monsieur le ministre Mayacine Camara tey est-ce que nga ñëw wax sa diggante moom la moo tax bi nga engagé woo pour euh, politique nga ñëw rangé wu ci moom la moo tax demoo si keneen parce que homme politique yi bëri nañ fii la moo tax demoo si keneen nga ñëw si moom daal loolu laa bëggoon nga leeral ma si tuuti. xam nga monsieur le ministre day sama càmmiñ di sama xarit mu nekk euh, un parcours boo xam ne xaw xaw na gudd parce que rek avant may dugg ci bi yàlla boole woon na ma moom. ba ma demee rek ba ma ne dama war a wàcc sur le terrain politique kon amatuma lu may naataamale nekk fii la wala fële dama ne moom la comme ni ma ko waxee. parce que ki nga xam ne réew mi moo ko soxla bitim réew soxla ko kon tey su nekkee sama gox ma war a jóg ne maa ngi politique yi jaratul may dem di làmbi feneen li ñuy ne tungu ne du teew ngay nataal waaw. te li nga xam ne da ngay sëgg sëggi for niroowut ak la nga xam ne da ngay yóotu. di nga xam ne rek jege na ma kon damay ne damay ànd ak moom parce que yeneen doomu dëkk suñ ko soxlaa réew mi soxla ko kooku nekk ak man di sama càmmin di sama xarit kon su may jóg politique damay jóg ànd ak moom ci politique teg ko rek ci ay ambition teg ko ci xam-xam teg ko ci ci liggéey fekkoon ne gisumoo ci moom loolu it wax dëgg fa yàlla lu mu doon doon sama xarit doon doon sama càmmin danaa seeti leneen waa mais rek vraiment am na compétence yi am na capacité am na it taxawaay boo xam ne vraiment su taxawee da ngay xam ne kii c'est un homme d'état bëgg na localité am bëgg na dëkkam loolu moo ma kii à ce que ma ak moom ci politique. waa nga nekk présidente de la foyer de la femme tey euh, bu ñu waxee loolu xam nga loolu rek mooy maanaam lépp li nga xamante ne moo ëmb jigéen ñi nekk Koungheul te jigéen ñi nekk Koungheul yëpp euh, amaana ni faralu nekkeewuñu ci côté euh, ministre Mayacine Camara tey jii jigéen en tant que présidente de la foyer de la femme est tey yaa ngi yëngatu ci yeneen domaine par rapport ak leneen lu dul politique li wala par rapport ak keneen ki nga xamante ne moo fi nekk tey yaa ngi liggéey ak moom wala yaa ngi sekk ak moom yenn relation yi. voilà foofu dafa fiy ñëw mais malheureusement xam nga le département de Koungheul dafa politique xàmmewul li nga xam ne mooy développement ak politique mais rek dama ciy sant yàlla bu baax a baax parce que man dama jàng développement. parce que développement soo koy def amul xaaj amul seet amul kii fii la far wala kële la far ñëpp ngay bokk yemale mais rek soo demee ba nga xam ne pare nga rek ci développement bi war a dem ci politique da sol sa mbubu politique comme ni ñu waxee politique da am appartenance politique ne jiw mii la wala fii la voilà mais rek malheureusement ñun fii amagun culture bi mais man nag euh, damay koo xam ne politique du ma booleeg doomu aadama soit ma àn ak yow wala ba ñu maa ànd ak yow du ma yow mais man dama am sama gëm-gëm am sama ambition lii la leneen la nga xam ne séq naa ko nit ki rek dama koy séq ak moom vraiment ba tax na may lancer appel à toutes les autorités politiques yi nga xam ne ñoo nekk dans le département de Koungheul neen di bàyyi xel ci li nga xam ne mooy développement ak politique. nit ki même fekkee ne bokkoo leen appartenance politique mu xam ne lii moom moo ko yor nga la confier ko woo ko nga boole ko ci la nga xam ne moom ngay ci ngay yëngatu. bul xool ne joor mi ànduma ak moom duma ko boole ci dara mais jëlal joor en tant que joor en tant que la nga xam ne yàlla may na ko mën na ko nga nga woo ko fa mais bul ko joo xoolee loolu man rek dama nekk nit koo xam ne soo ma xoolee ne ma joor mii kat du ma ko woo ànduma ak moom mayaasin la ma wan la ni foofu laa gën a nekk ma xaw jàpp sama morso ñàmbur mais rek fekkee du loolu man développement aw ma ci xaaj aw ma ci seen yàlla nga doon opposition développement boole ak yow damay mel ni man ak yow ñoo bokk ndey ak baay say ambition ci politique est-ce que bi da nga fas yéene politique en même temps cumuler waale sa lépp li nga xamante ne nii mooy say ndombal tànk. li ma motiver mooy gis kilifa yu mat kilifa yu bëgg seen gox yu am xam-xam yu réew mi soxla rek ma ànd ak ñoom moo tax ma dugg ci politique muy benn. beneen bi comme li nga ne politique ndax dama ciy doog a dugg wala damay ne man damay doog a door instant bi. parce que ñëpp xam ne ne rek élection locale yi ñu génn dama àndandoo nag euh, monsieur le ministre secrétaire d'État chargé des réseaux ferroviaires nekkoon euh, candidat bi nga xam ne moom leen investir woon ci commune Koungheul yàlla def li mu def ñu gañe ko waaye terewu dañuy ne ndam demul ndam dikkut ndax lépp ci biir Koungheul la rek di féliciter monsieur le maire Alioune euh, Badara Ly ci fonction yi nga xam ni moom la yor ak ki nga xam ni mooy madame Socé Diop Thion mi nga xam ni moo dirigé conseil département hôpital euh, bu Koungheul aussi di leen ci félicité bu baax a baax les politique bi rek damay doog a door parce que jógee nañ ci defet defet soo ci jógee du caagi ne da ngay toog mais dañuy damay man damay doog a tàmbali ci laay doog a wax rek taxawaguma damay continuer ànd ak ki nga xam ne mooy le secrétaire d'état chargé du réseau ferroviaire ci lépp loo xam ne activité politique am la incha allah dama ciy taxaw parce que dama ci am ay ambition am ci aussi ay bëgg-bëgg bëgg rek lépp dama ko accentuer taxawal ko ci ngir jàppale sama gox aussi jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci département Koungheul comme ni ma ko daan defee ci ONG yi kon vraiment mu nekk loo xam ne fi ñu toll nii bëgg naa apporter sama touche ci li nga xam ne mooy volet politique bi pour mën cee jàppale aussi sama mbokk jigéen ñi bu baax a baax tey ban message ngay lancé monsieur le ministre bi nga xamante ne ni mooy Mayacine Camara lan ban message nga koy lancé en tant que comme que daf dañ ko gagné woon ci élection yi te ñu ngi dëgmal élection législative yi di ñëw lan nga koy wax yow soo ko doon conseillé tey lan nga koy wax. waaw li ma koy conseillé parce que monsieur le ministre xam nga moom fi ñu toll nii moom c'est le responsable départemental. li nga xam ne moo am dam comme ni ma ko waxee rek defet amut parce que ndam demut ndam dikkut lépp ci nguur yàlla mais na euh, euh, regroupé waat. trouba mi boolewaat euh, famille Benno Bokk Yaakaar yëpp ñu àndaat ñu s'unir pour benn objectif boo xam ne mooy objectif essentiel pour jàllale liste législative bu Benno Bokk Yaakaar au soir du juillet parce que ñëpp xam ne ni rek liste yi génn neen investiture yi nii la tëddee ci département Koungheul euh, muy El Hadj Mouhamed Dieng maire de la commune de Fass Cekkeen ak euh, honorable Fanta Sall ma sœur di koy félicité bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne jot na ko fee def président renouvelé waat confiance am ci modeste personnel kon nag euh, ki nga xam ne mooy monsieur le ministre ak l' ensemble des autorités yi nga xam ne rek aussi ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar neen joxante waat loxo rek joxantewaat loxo bi rek du pour Mayacine du pour euh, Fanta du pour Alaaji Mohamed Dieng mais c'est pour le président du Macky euh, président il faut ñu bàyyi ci xel xam ne list bi c'est le liste président Macky Sall mais pas liste Fanta Sall pas liste Alaaji Mohamed Dieng pas liste Mayacine Camara kon neen bokk ndey bokk bàyyi yëkkatee ndoor dooroo ndoor ba nga xam ni yi fi daan am mu bañ fee am mooy li nga xam ne mooy appel bi may lancé monsieur le ministre Mayacine Camara moom mu dox ko joxaat ñëpp loxo ñëpp àndaat dajale waat njabootam ñu nekk benn bokk benn ndab bu ñuy tibbee. jigéen ñi nga xamante ne ni yow yaa nekk seen président ñu ne ñëw si yow ak ñi liggéey ñi ngay liggéeyandoo tey lan nga leen di conseiller tey en tant que jigéen gis nañ ne yaa ngi engagé wu toogoo yaa ngi fight yaa ngi def lépp li nga xamante ne nii mooy ëmb développement tey lan ngay wax jigéen ñi nga xamante ne nii dañoo toog seen kër yi bañ a liggéey lan nga leen di wax. waa man na yaakaar naa ne sax xam naa ne jigéen ju toog ci kër moom daanaka mën nen ne bëreetut parce que ñëpp xam ne comme ni nga ko waxee financement yi sànq laal nga lu mel ni DER promise bi aussi moom mi ngi fi muy pour jigéen ñi di pour ndaw ñi aussi jigéen ñi nag man fépp fu ma ci dem parce que ñëpp xam nen aussi damay yore foyer de la femme nekk comité consultatif noonu laa bootee jabaru jàngalekat bu département de Koungheul muy association des épouses des enseignants muy association boo xam ne yaakaar naa euh, xam leen jigéen ñu takku jigéen ñu Pastef aussi nekk ci comme ni ñu nekkee ci yeneen groupement yi aussi ak groupement yi nga xam ne ñoo yor ñetti caabi yi aussi jigéen ñi di ci gis seen euh, bopp di ciy jël di ciy liggéey di ciy jàppale seen bopp en daal li nga xam ne moom laay ñaax sama mbokk jigéen ñi mooy bu jigéen ñi toog soxlaatul femme au foyer dañuy ne na jigéen ñi yëngatu autonome mënal seen bopp nga xam ne daneen mën a jàppale seen njaboot jàppale seen borom kër parce que femme warut nekk objet Coumba Gawlo Seck wéy na ko te yaakaar naa ne loolu dalu ñun ñu jigéenu Koungheul soo demee dans tous les secteurs de développement da nga fa fekk jigéen ñi ni lu am la luuma yi jigéen ñaa ngi fa soo demee ci marché ñu ne euh, sër ñaari loxoo koy takk tuba it ñaari loxo koy takk kon yaakaar naa ne ci jamono jooju ñoom toll na fii moom yàlla def na du euh, Koungheul choisir ma ko Koungheul moo ma choisiral boppam parce que rek dëkk boo xam ne sa yaay fii la juddoo yaroo fi màggee fi sa papa juddoo fi yaroo fi màggee fi manit ma ñëw juddoo fi yaroo fi yaakaar naa ni foofu kon man damay ne Koungheul moom ma choisiral boppam kon mënuma def lu dul dellu si fi nga xam ni foofu laa am ndax man it damay tiitaroo Koungheul damay ne toujours je suis très fière d'être koungheuloise en tout cas fépp fu ma mënut a dem su nekkoon sama sago drapeau Koungheul mooy nekk ci kaw leneen li nga xam ni regret mën naa ne du ma ne regret la mais lenn rek mu xaw maa métti Koungheul neen joxante waat loxo neen joxante waat loxo bennoo parce que Koungheul benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kër goo ci dugg rek am na tur yoo xam ne génn na dem ci yeneen euh, kër mangoog mag ñi tise woon neen ko kon la ñun la nouvelle génération neen ko defaraat ba nga xam ni li fi mag ñi wàcc woon daneen ko mën a suqaliwaat mën ko deqalaat bañ a indiwaat beneen visage boo xam ne Koungheul xamu ko parce que Koungheul fu ko waxee rek dañ ñoo naw fépp ci àddina si rawatina ci Sénégal Koungheul model ci région de Kaffrine muy la département de Koungheul kon vraiment mooy li nga xam ne rek xaw na maa métti ñàkk ànd bi mais yaakaar naa ni dana am incha allah ñun at nouvelle génération bi at jeunesse bi suñ taxawee rek yooyu yëpp incha allah dana dana fi jóg bu neexee yàlla yéen a ngi woon ci seen deuxième numéro gan gi ki ñu fi dalaloon nag mu ne muy Dior Dieng nekk jigéen bi nga xamante ne ni macha allah kenn du ko présenté kenn. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuy yéen ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant ah Dior moom bu ngeen ma ko laajee sa war naa tontu leen ci ci femme développement bi mu nekk parce que mi ngi jàppale jigéen ñi si Koungheul yëpp. bu fayee ñetti caabi yi yii am si Koungheul yëpp moom moo moo ko moo ko ubbi barki de moom Njaay bii moo si mujj muy suñ bos macha allah kees bi macha allah waaw te jàppale nañu bu baax a baax a baax a baax baax ñun jigéen ñi ah ñun nag man jabaru papaam laa mais nag ku ñu respecté la ku ñu bëgg la ku ñu jàppale la tamit ci li muy li ci li muy yëngu nii lépp lu am damay oo ne ma Soufy Ndiaye nangam am na Soufy Ndiaye nangam am na man moom daf ma bëgg personnellement dama koy wax daf ma bëgg waaw kon nag ah ñu ngi koy li li li muy dugg nii ci politique dañ ko ciy ñaanal bu baax parce que dafa yàgg lu mu yàgg bëgg la waaw te mi développement bi daal Koungheul moom vraiment kontaan nañ ci ci jigéen ñeeg ñëpp wax dëgg yàlla suñu diggante Tata Dior suñu ci laajee dinañ ci sawar torop bu tontu ndax Tata ku baax la ku bëgg nit ku mën a jàppale nit ku mën a jàppale xale tamit ndax ñun ay xale lañ ay ndaw lañ ñu ngi soog dugg ci politique. waaye su ànd ñun affaire euh, wàllum campagne wala wàllum euh, programme yi lu mu bon bon ñu gisee loo xam ne xam nga xale moom du ñàkk def erreur. mu nekk na mag moo xam ne na mag mu mën a jàppale xale tey mënu nañu ànd ci programme mu gis ñu def erreur mu croiser bras wax dara waaye lu mu bon bon dinañu woo ne la bul def lii bul wax lii bul def lii defal ni defal naa ko dëgg yàlla mu ngi ñu bu baax ci politique bëgg nañu faale nañu soxla nañu comme kii li mu wax sànq rek Mama Dior moom ñëpp la bëgg ñëpp moom waaw li ma koy jox conseil maanaam na gëm boppam rek jàpp rek tëw a bàyyi ndax nit moom soo jëlee tànk pour dem di nga dégg façon wax ku nekk te di nga dégg lu nekk tamit liñ lay wax gëmal rek te dem yàlla dina dina la jàppal incha allah dina baax. jox seen wàccuwaay di ñëpp ñu nekk si saal bi yow nag laaj nga ma tey lu ma sawar a wax muy mama joo nday xaar cobaan joor saala mi ñoo bokk ndey yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ku baax la ku mën a mën a sonn si doomu aadama la ku mën a sonn si famille bi la sama kër yaay dama fa gën lu fa yëkkatiku joor ko fa yëg ko fa yëkkati kon ku ni kii daal lu ma mën a wax ma mën a wax mënta xaj fii sax xanaa damay wax damay ciy wax tuuti rek bàyyi nit ku baax a baax a baax a baax mooy Dior Dieng ku mën a sonn si mbokkam mooy joor Dieng alalam du fekkee doolem du fekkee dara du fekkee kii daal dañ koy ñaanal rek wér ak wér la ndax daal wax dëgg yàlla ah ñu bokk ak moom de meremuñ ko benn yoon lu mu am bokk na koog ñun wax dëgg yàlla te ni mu koy defalee sama yaay la ko defalee yaayam yaayam meer ay dëggee moo ko njëkk a teral moom Dior moo njëkk yaayam si doom kon nag kenn merew ko daal yal na ko yàlla fay rek. ngi leen nuyu yéen ñëpp ci nekk ci sant sama nuyu ma di nuyu Baye sama doom. dina nuyu ñi fi toog ñëpp waaye dox na foyer de la femme bu buñ ci ñëwee si jox Georgia ñun danañ ci sawar wax parce que dañu ànd ak moom di liggéey di ko accompagner si foyer de la femme ñu ñëw nag fekk foyer de la femme fu mu nekkoon ak fi ko Georgia ngi jëlee ça fait deux vraiment liggéey liggéey bu anam du xaaru ci kenn ndax ñun ñëpp dafa euh, foyer bureau la mais respect toppat faalu bureau ñun balaa ñu ñëw dana fekk moom joor li mu war a liggéey dina ko liggéey nettoyage ak yëpp dana ko def mu ñëw nag aménagé ko te car macha allah nag jigadiwuñu ndax bi mu ñëwee vraiment Assane Diop moom itam di ko wax mention spéciale defal ñu si lu sut suñu njort ñun ñëpp waaye ñëpp gis nañ ko yéen ñi xam ngeen lim si Assane Diop def équipé ñu ko. ñee déeta waaye tuuti ministre de kii ñëw Yankoba Diattara moom itam ñëw gis nga ko équipé ñu foyer bi foyer bi jël ko jox ko ay xale nag ñu si liggéey jigéen ñi nag vraiment ñoo ñëw dafa ornité nañ ba bëgg a dee. xale yi nee na ñëw leen tailleur ñëw na pour ñu jàppale leen mais joor équipé nañ yëpp boo gisee foyer bi léegi macha allah xale yaa ngi fay liggéey xale góor yi di fa liggéey ah dañu ñaan ndaw xëy xëy ndaw yi dëgg la amagu mais am na xale yu fay liggéey macha allah ñëwuñu kenn ndax suba ngoon xam naa nag ñu bari na xamuñ ko waa Koungheul gi ñun nag ñoo mën a tey mooy yoon ndax xale yaa ngi fay liggéey xale góor yi te lépp si joor jeng donc nag ñun ñi di ko gërëm nag di ko accompagner ñoo bokk ak moom foyer de la ba pare nekk comité consultatif des femmes muy accompagner Nafi Ngom ñu di ko accompagner Nafi bu waree jóg def naa ko Dior Dieng yow laay yónni te su jegee ñoom ñu ànd ak moom topp si ginnaaw muy xale bu loxoom set nag waaw dafa boole politique ak développement politique ak développement nee dafa bokk ndey waa bokkuñ bàyyi te ñaar yëpp lay doxal di ko ñaanal rek mu am si réussite totale muy si foyer muy euh, politique bi ak développement bi loolu la joor Dieng accompagner loolu nag man li ma siy wax nag xaw ma nag def na bilan du ma mën a wax mais nag ñun mun nañu ko sedde ne lu mu leen wax yëpp. dëgg la waaw ñoo ko teewee merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi teew ku ne maa ngi lay sa tur ak sa sant di jiital ci nuyo bi tata Ndeye Fatou ñun nag Matar ñu ngi ànd ak joor ñun les épouses ndax les épouses kenn umpalewul ne Koungheul bëri na ay enseignants lool waaye xamante seen jabar yi am na ñenn ñenn ñu xamante woon mais nekkul ñëpp yàlla ak joor ñee tax na ba képp ku nekk épouse. ci biir Koungheul ak li wër Koungheul ñëpp xamante nañ te yàlla ak joor ñee tax ndax euh, def na fi loo xamante ne kenn xaaru ko ci woon dañ am dem lante di ñëw lante mais nekkul comme ni ñu koy defee nii ndax léegi chaque euh, fin du mois ñun les épouses yëpp dinañ dajee këram fii man na 4 ans su ma juumut man na 4 ans ak léegi buñ ko commencé ak léegi ñun ak moom. chaque fendiment dañuy dajee këram kafre fo ñu xamante wutoon ñëpp xamante bu xew amee macha allah dañuy daje di jël téléphone am woote képp ku xamante ne jabaru jàngalekat nga ñun ñëpp dinañ daje ci xew bi ñu kafre animé dem ñibbi te yàlla ak joor mu ngi ñu taxaw si lépp nag mu ngi ñu taxaw si lépp di ñu jàppale ci lépp yokk dinañ ko gis wala koo gis itam sa jëkkër dina ko gis ba tax na lu ma lépp lu ma fi wax damay wax loo xamante ne ëllëg ku ma gisee jabaru jàngalekat yi dina mën a siggi naa fi toogee seen kàddu mais su ma leen gisee dinañ xam ne li ma li nekk ci tuur bi réalité nekk ci tuur bi moom laa fi wax ndax joor bu ko defutoon tey bu buñ ma wooyee balaa may ñëw dinaa informer képp koo xam ne jabaru jàngalekat nga ne la joorkat daf kaa dañ fa am interview këram nee na nañ dem ñoom ñëpp ñu jox ma kàddu ne ma demal toog waxal ñu ndax joor moom amuñu benn loo xamante ni jabaru jàngalekat yi ñun am na lu ñu koy teg ci ndoddam amul ndax joor téye nañu soutenir nañu teg nañu foo xamante ne nii ah wax dëgg yàlla ñun yaakaaruñu woon sax ñun suñu egg na foofu ñun ñun yaakaaruñ ko woon de wax dëgg fa yàlla. ñu njeexitalu émission bi Tata Dior comme ni nga ko gisee rek dañoo génnoon dem jëli ay témoignages euh, tegal nañ la ko nga si taan ko kon tey ban jàngal nga si am ban remarque nga si mën a am nga si mën a am. waaw xanaa am ci surprise lool wax dëgg fa yàlla ci ñi nga xam ne jot ngeen euh, wax ak ñoom di njëkkee ci ki nga xam ne mooy waa Moussou Kendo muy xale yu baax yu yu neex àndal parce que damay ànd ak ñoom ci côté politique. monsieur le ministre Mayacine dénk ma leen bu baax a baax ci li nga xam ne ci leen yëngatu vraiment lépp lu ñu wax ci man rek ci ñoom la nekk parce que mag su ñemee ndaw ca ndaw ga la waaw ca ndaw ga la kon ñoom it maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen wax ni maa ngi seen ginnaaw ngeen teg ci ki nga xam ne sama rakk la di sama doomu ndey di sama xarit ndax mbokk moo gis dafa am jàppal ma ci diw mi wax dëgg fa yàlla mbokk gi yaatu na lool fa tabaarakàllaa waaye rek moom da kenn di ci ku spécial waaw kon euh, li mu wax rek yaakaar naa sama devoir la lu ma war a def la ma ngoog parce que ñoo bokk lépp ndax nit sooy def di def ci biti soo ko njëkkee wut ci say biir i mbokk mooy sànni nga sa loxo te nit amul lenn lu dul ay mbokkam te ñoom it vraiment mooy rakk yoo xam ni ñu neex a boot leen wax dëgg fa yàlla duñ def dara loo xam ni te laajul ma ci wax dëgg kon euh, ñoom it damay ñaan yàlla yàlla yàlla gën leen a aar gën leen sàmm gën leen jàppale musal ñu ci cat at làmmiñ at euh, balaa ki nga xam ne tànt la ci man développement boole ñu muy sama jabaru papa moom it mu kàddu yu am solo yi mu wax muy ñetti caabi yi ndax ñetti caabi yi ñëpp xam ne ni ñu ngi koy samp ci département Koungheul rawatina ci commune bi. waaw man ak sama naataangoo Mamadou Lamine Gueye moom rek yàlla def seen groupement ñoom it ma sampaloon leen ñu ci gis seen bopp parce que man lépp lu may waxtaan ak jigéen di ko ci xiir at foo mënut a bokk yaa xam sama kilifa nga war a nekkoo sama kilifa dama lay xiir ci développement kon ñoom it ma xëcc leen ci développement ñu nangul ma ko lool macha allah ñu ciy ay jàmbaar bu baax a baax. ñëwit ci ki nga xam ni mag la ci man xarit la ci man ñu bokk foyer de la femme bokk aussi li nga xam ne mooy comité consultatif des femmes. voilà mooy koo xam ne fu ma jógee rek muy guddi muy bëccëg muy naaj muy taw mu ngi sama wet di may soutenir mën naa ne lépp lu ma ñemee rek ci foyer de la femme wala ci comité consultatif des femmes. gannaaw ba coordonnatrice bi jàllee ajaratu fi Ngom moom it am na ci part de responsabilité ndax su ma demee ba xaw a découragé tey na ma déedéet ma bu def noonu wala mu jël ma ci suuf ne ma nii jox ma ay orientation kon moom it euh, li mu wax ci man ci moom la nekk ndax loolu ku baax rek moo ko mën ndax ñëpp xam ne ne Koungheul yombuta liggéey wax nga ma ko sànq ci laaj yi rawatina jigéen ñi mais toujours daf may épaulé saa su kon moom it maa ngi koy jaajëfal bu baax koy gërëm bu baax réussir bu ma ci am rek moo ma ja euh, ci ñi ma jàppale ci la bokk di ñëw it rek ci mbootaay nga xam ne damay ne man sama mbootaay bopp la muy épouse des enseignants ndax rek euh, wax dëgg fa yàlla bay ci say omi tànk ndax rek euh, jabari jàngalekat yi muy ñu baax ndax mënoon naa am xalaat bëgg leen dajale te duñ ko nangu te am na ñu ma ci mag am na ñoo xam ne maa leen ci mag waaye suñ toogee lépp lu ma wax rek nee neen waaw sonaluñ ma ci dara yombal leen ma ci lépp waaw rek aadama euh, wax lu am solo ndax moom leen dénk xaalis wax dëgg fa yàlla yàlla dimbale nañu xaalis bi mosuñ cee am jafe wax dëgg fa yàlla am na loo xam ne wax na ko dama koy def mais rek man dama jàpp ne ay nit suñuy ànd day am ay toujours ay manquement ndax ñëpp bokk na yem am na ay o am na ay bas kon nag suñuy ànd dañuy wante mu euh, du ànd boo xam ne dañuy xaawante sutura parce que man gëmuma lool dama jàpp ne ay nit suñuy ànd dañoo war a jàppalante te yàlla tax ñu war jàppalante wu te yàlla tax kon foofu ànd amatu fa sincérité amatu fa kon su boobaa dama leen di delloo mbootaay moo tax lépp lu ma ciy def rek li ci ëpp dama koy def ci sutura des fois bureau bi attaqué ma taakale sama kaw mais suñ paree damay accepté xam ne rek ànd bi moo ko waral te lépp lu ñuy def rek bugguma mu dox la waaye ma it aussi bëgguma di xaawi sutura nit ñi vraiment ñoom ñëpp di leen jaajëfal ci kàddu yi am solo yooyu nga xam ne yëkkati neen ko ko envers ma modeste personne li ñu wax yëpp ci ñoom la nekk ndax wax euh, ci sa mbaaxu morom yombut kon ñoom ñoo baax kon damay sant rek comme niñ ko waxee ñi nga xam ne jot ngeen jaar ci ñoom muy madame Ndeye Fatou Dieng at euh, Binta euh, Tunkara Ndeye Xaat Cobaan Sophiatou Ndiaye Adama Sall Aram Booy ak sama bàjjen Adja Dieng ñooñu nga xam ne aussi ki neen ak sama membre famille yëpp rek maa ngi leen di sant aussi di leen gërëm waaye gërëm googu yëpp rek damay jël li rek di koy teg ci loxo sama kilifa bu baax googu fa tabaarakàllaa macha allah muy sama borom kër di Pape Ndiaye. ndax euh, li may wax rek lu ma mën at lu ma sañ a def at jot gu ma am rek moo ma ko yombaloo kon maa ngi koy gërëm di koy sant di koy ñaanalit rek moo xam ni mu bëgg ci njabootam bëgg ko ci liggéeyam yàlla na ko yàlla defal. beneen bi nga xam ne moom laa ciy teg di woowaat sama mbokk jigéen ñëpp ci li nga xam ne mooy développement ñu joxante loxo nekk benn xam ni sans ñu nekk benn mënul am dara. développement rek dafa laaj ñoom bokk benn gis-gis bokk benn euh, taxawaay suñ ko deful du sotti suñ paree rek lépp lu ñuy def ku ci nekk am nga sañ-sañ def leneen lu la neex beneen bi nga xam ne aussi dama ciy ñëw nga xam ne mooy actualité instant bi muy ordre bi muy législative yi nga xam ne danga koy waajal parce que ñëpp xam ne ne aussi dama nekk ci politique bi may yëngatu rek ci parti bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, parti Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ci ñi ngi investir honorable député Fanta Sall ma ak euh, monsieur le maire de la commune de Fass Cekkeen di lancer appel à tous les euh, responsables politiques yi tourné autour de Benno ñu taxaw jàppale liste bi pour une victoire écrasante au soir du juillet incha allah ñu joxaat le président Macky Sall la majorité à l' assemblée nationale mooy li nga xam ne mooy samay vœu aussi mooy samay souhait jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk aussi ci département bi wan leen taxawal neen jigéen kon neen jàppale suñ mbokk jigéen yàlla def li nga xam ne mooy gën gënal ñu muy liste bi jàll bu baax a baax di ñaanit jàmm gu saxit ci suñ département di ñaanit élection yu ànd ak jàmm it rek ci département Koungheul parce que jàmm ci la lépp xaj sànq wax naa ko Koungheul benn bopp la kenn mënu koo xam ñaan lu métti métti rek dañuy pare retrouver waat kon ngalla neen def élection yu ànd ak jàmm que le mbégte ak contentement laa amoon tey dalal ki nga xamante ne nii mooy jordin